laa ilaaha bismillaahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare suñu kàddu nag di jibee fii ci Touba kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndigalu sëriñ am Amdi Fall mu sëriñ Moodu Mbenn mi nga xam ni tey mooy xalifaam jiite njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides dafa digle bisub alxuraan ak xasaayit ak zikrulaa ñu war koo def ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski yu ñu nekk ginnaaw bi ñu dooree njàngum alxuraan mi ci dibeer ji ñu génn war koo wéyal ba ci altine ji mu fas yéene ñëw tëjal ko boppam ndigal loolu nag wàll wi ci jëm ci zikrulaa mu jox ndigal li sëriñ Amdi Fall mi nga xam ne moo jiite njabooru maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ngir ñu taxaw ci ndigal li loolu mooy sababas ñuy ñëw fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndigalam di dégg Serigne Dame Fall ci kàddoom ak jëwriñ yi nga xamante ni ñoo ko teewal ngir ñu joxe ndigal loolu ba ñu xam nuñ ciy teewee incha allah bu ñu yeggee ci bis ba. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu ngi. jottali ay kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyikoo si jëwriñu Cheikh Rafal ji di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda muy jiital ci kàddoom di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi koy teewlu di leen jottali ay cantam ak i ngërëmam di joyal ab siyaaram mu jëm ci Cheikh Modou Muntaxa jëwriñam Xaadim Rasuul ñaan sa borom yàggal ko fi te wéral ko di siyaare njabootug sëñ Tuubaa gépp di ñaan yàlla sunu boroom mu na leen ba yéene ji ñu am si toolub sëñ Bamba bi yàlla dimbali leen ba nu def si lu kawe seen njort noonu lay nuyoo njaboot gi mu bokkal seere Faal yépp te tey muy seen jëwriñ waaye nag di jottali ay cant ak i ngërëm mu jëm si ñoom ñëpp di leen ñaanal li sama borom mm, kattanal leen ba ndigal li waxtu wu rotee rek nu jekk ko na ko sëriñ bi bëggee sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooleem taalibe yi fu nu mën a ne te di leen ñaanal sama borom na leen te wéral leen te defal leen tawféex yoo xam ne nu nu bëgg a jekkoo liggéey bi Seera Faal bi dañ ko ne jekkoo di sant ñi nga xam ne ñoo fi teew si ndigalam ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko muy ndigal li nga xam ne kere ba mu wàccee si moom la daal di joxe ndigal nu daal si dox tànk yi ñu ci war a dox yépp ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko nii loolu nag mooy bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal te sëriñ Muntaxa Xaadim Rasuul tànn ko muy altine incha allahu mooy bisub man noonu ko sëriñ Modou Lamine waxe di bisub alquran di bisub xasida di bisub tudd yàlla muy loo xam ne yett yooyu benn bu si ne rek sunu borom am na lu mu si fàggul jaam ñi waaye Cheikh Modou Muntaxa mi nga xam ne moom moo xam li nga xam ne moom la si jublu moo ko sàkkoo noonu yi wax ni day doon bisub alxuraan day doon bisub xasida day doon bisub tudd yàlla donte loolu lépp nag tënku na si lenn rek waaye noonu la ko sàkkoo loolu yi nga xam ne nag mooy tur yàlla wi te nga xam ne képp ku ko tudd sa xel dem si Cheikh Ibrahima Fall muy woo sëriñ Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda mii jëwriñu Cheikh Ibra Fall daal di koy jox ndigalul mu taxawu bisub si boobu bii muy bis boo xam ne dafay mel ne dañ koy tàmbali si njalbeen ga sa suba rek yendoo ko ba ngoon ba am ndégalul yewiku su ko defee nu yewiku loolu nag la sëriñ bi di yaatal si mbooleem ñi mu bokkal Cheikh Ibrahima ak mbooleem taalibe yi wax ni dafa bëgg nu taxawu ko ni ko sëriñ Modou Mountakha bëggee te mu ànd ak mboolem li nga xam ne loolu la baaxoo àndal mooy ak dal mooy ak teewlu mooy ab yar mooy ak teggin ndax loolu mooy màndargay yoon wi loolu rek lañ xamee ak ab Baay Faal mooy ndigal su rotee lépp luy jumtuwaay bu nu mën a ja yittewoo ngir na sëriñ bi bëggee ndigal la na mu ko joxee nu mën koo jëfe noonee loolu rek mooy li nga xam ne moo war doon taxawaay ku yaakaar Cheikh ma Fall kon sëriñ bi nee na mi ngi woo mbooleem koo xam ne kii sa yaakaar génnul Cheikh Ibra mbooleem kuy tuddkatub yàlla mi ngi lay woo ñu ñu fanaan si fi incha allah dibeer ji suñu xëyee dimanche suba altine suba teel ñu daal di jublu si liggéey ba tànn nañ ay jëwriñ yoo xam ne nag yaakaar naa war nañ koo xaw a miin ndax sëriñ maam Cheikh Fall moom Cheikh Serif Assane Fall mi nga xam ne moom moo jiite kuréelu yi te am ndigal si sëriñ bi euh, doxal li nga xam ne moom la sëriñ bi di digle mu jëm si wàll woowu yëpp nag ak ñi mu ko àndal ñëpp ñoom xamante nañ kon ñoom ñëpp nag ku si ñëw na ngay fexe ba jokkoo ak sëriñ maam Cheikh. su ko defee danañ la teg si yoon wa nga xam ne moom la ñu tëral ngir li nu bëgg mu mu tege si aw yoon mooy mbooloo moom bu nu wootee faw ñu sàmmante ak yu baree bari ndax euh, li tubaab di wax organisation dafa mënta ñàkk ndax bu nu ñëwee kenn ku ne am nga foo war a taxaw am nga loo war a def am nga waxtu woo ko war a defee te sëriñ bi dafa bëgg yar bi nga xam ne moo am kër Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne moom la ñu xamee yar boobee fu nu dem ñu yóbbaale ko rawatina feenu jëm di di di ëttub Serigne Touba di wërum boo xam ne bu jara war mal la boo xam ne bii bu yéeme la muy diggante jumaa ji ak barab yu njëkk yi dafa mel ne foofa lañu war a foofa lañu war a féete muy foofu si diggante jumaa ji ak barab yi kon Baye Fall yi ku xëy na nga jawal foofee incha allahu boo demee da nga fekk ñu teg fa ña nga xam ne ñoom la jox liggéey bi ñu war koo jiite kenn ku si nekk danañ la wax na nga xam ne noonu nga war a taxawee ñi nga xam ne dañuy tertu mbooloo mi ak ñi nga xam ne dañ leen di gindi ba nu xam wet gu nu jëm ak ñi nga xam ne ay tuddukati yàlla lañ kenn ku si nekk ak ñi nga xam ne dañoo ñëw di teewloo kenn ku ne fañ la wax nga toog fa nga toog fa lañ la wax nga def ko nga def ko su ko defee loolee ku fa ñëw dana xam ne fii kat njabatug Cheikh Fall la fi teew te dañoo teew si jëfe ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko sëñ Tuubaa si moom kon sëriñ baa ngi ñaan li sëriñ Muntaxa jublu si lii muy deflu ñaan si doole Cheikh Ibrahima Fall maamam ja yàlla na suñ borom yàggal ko fi yàlla suñ borom wéral ko yàlla suñ borom mottali ay yéeneem euh, li si des nag xam naa euh, suñu jëwriñ ji toog di sëriñ maam Cheikh nga xam ne euh, rakk sëriñ bi la di taalibe sëriñ bi waaye doon ab murit boo xam ne bii boo ko gisee doo jàpp sax ni bokk na ak sëriñ bi dara ndax bëgg gi mu bëgg wala tànn gi mu tànn doon rek liggéeyee ko nu Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi doyloo ko nag. jël liggéey bi yëpp teg ko ci loxoom xanaa moom la ñuy bàyyi nag mu eggale moom nu mu ko bëggee rek mu oh, mu mu waxee ko noonu mu di teewloo ko noonu te fas yéene koo jëfe noonu ndax moom moom la sëriñ bi teg lool ci loxoom noonu leenu sëriñ bi santoon mooy nu woo murit yëpp fu nu mën a ne si réew mi ak bitim réew képp ku mën a teew si ndigalu sëriñ Muntaxa lii sëriñ bi nee na nga teew li jëm si wàllu jumtuwaay yeet muy xéewal yi sëriñ bi wax na ni ab Baye Fall day sëñ bi liggéeyloo ko ba noppi di ko jox muy xewlu loolu de xamee su ko woon si yoon wi kon nag murit yi nga xam ne ñoo féete Touba wala ñu féete fu jege kenn ku si nekk nag xam ni am na ndigalul saytu aw ñam wu mel na mu war a mel indi ko sa bërëb ba ngir murit ya fa daje mën koo jëfandikoo ak lépp lu jëm si lu nuy naan muy kafeek muy meew ak wala loo xam ne nii rek man ah, murit bi dana ko yittewoo ngir ngir bernde loolu sëriñ baa ngi sant mboolem ku di bàyyi ku di taalibe loolee nga nga daal koy daal si jublu léegi te daal koy fonk te def ko mu mel na mu war a mel euh, li nga xam ne moo jëm si wàllu bâche yi tamit euh, sëriñ bi wax na ni euh, am na ñu mu tànn wax ñu saytu loolu nanu wut ay bâche yu doy yu baax mu wër foofee ba ñi nga xam ne dañuy toog mën a toog si kër yi ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy si kër mën a ne si biir bâche bi loola dinañ ko saytu ak Serigne maam Cheikh incha allahu waaye daal nañ murit yëpp xam ni ku mën a togg sa kër aw ñam nga indi ko def ko addiyee Cheikh Ibrahima Fall ñu jébbal ko sëñ Touba sëñ bi daal nee na mi ngi koy digle ndax moom day loolee la fas yéenee nekk bu xëyee dana dana dana togg ay ñami boppam. yoo xam ni dana ko yóbbu ba sañoon nag ñëpp tàbbi ci tawféex googu kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ñaan lii Serigne Mountakha jublu si ndigal lii yàlla suñu borom defal ko ci lu kawe njortam barke maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allazi minna talab iqlaas saayin wa muraat al adab man yansuru alxuluba wa sharaira doon allazi minna yakunu zahira suma salaatu max salaami yatbahu ala allazi fina xadan yushafau من بفدائل الهدى تعالى وعن رزائل الردى تعالى محمد الكاشف عنا خم وآله وصحبه والأمة mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba ñu nuyoo Sëriñ Mountakha di ko ziyaare di ko ñaan fan wu gudd ànd ko wér noonu la ñuy nuyoo ko ziyaare Sëriñ Amdi Moodu Mbenn mi jëwriñam ji nga xam ne dafa am bis bu mag bu muy wootee te am lu mu ko ci cëralee te mooy turu yàlla wi loolu nag day mel ne jaaroon na fi wuuteeg bii yoon xam naa xataayu jataay bee taxoon ñu bëggoon rek nit ñëpp xam tëralin wi moo tax moo sabab jataay bii tey waaye nii sëñ daam waxee léegi nga xam ne ci ndigalu sëriñ bi la yëkkati woo mboolem jabatu maam Cheikh Ibrahima Fall yi te loolu ma ko jaar ci mbooleem jëruñ yi nga xam ne ñoo ne ci ëtt yooyu di wax ne sëriñ bi altine jàmm dafa am bis bu mel ne bis bi muy sàkku waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw taxawul ko ci mbirum ci wàllu sikar maanaam turu yàlla wi loolee nag euh, lañ cay dolli rek mooy ñu xam ne euh, dana xaw am tuuti lu mu wuteeg lu njëkk la ndax bee moom sëriñ bi moo joxe woon li ba noppi jël ay ay ay matukaayu boppam tey nag dañoo bëgg mboolem ñi nga xam ne njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall lañu moo xam muy. kilifa yi wala muy mboolem ñi nga xam ne ñooy seex yi ñu amee taxawaay bu mat sëkk ci jàpp ne lépp lu fa sotti ñoom ñoo ko war a sottal loolu nag buñ ko buntu boobu it mooy ubbiwaale keneen ku doon tam te aju feneen nga jàpp ne lii sëriñ bi wootee am nga ca wàll loo ca man ci sa tolluwaay nga def ko sëñ bi lim na ay ay ay ay ay yu baree bare waaye lum ca ci mën di doon rek lépp luy tax bis ba yéwén rek loole moom euh, ñu ngi koy sàkku ci ñépp euh, tur yàlla woowu nag sëriñ bi di woote nañ ñëpp xam ne euh, suñ borom moo ko layal euh, wala ak bëru wala u ya'lam bi ma woon bu fekkee ne dañuy sàkku ñaan xëy na ñu dooree turu turu suñ borom woowoo wala ñu tëjee ko lu ci doon manees naa rafet njort ndax suñ borom moo wax ne nit ki la gën ci li muy jëf muy tudd googu muy tudd yàlla ginnaaw nag loolu suñ borom ma ko layal ñi ngi am yaakaar bu baax ne buñ ci eggee te nii ko sëriñ bëggee ñu defe ko noonu lañ ko doon sàkku ñun murid yëpp danañ ko am ñu ngi ñaan tam mu tas wasaaroo ci àdduna bi yëpp bu fu waay nekk muy ci biir réew mi bitim réew njariñ loola fekk la fa la ca dollekuwaat tam mooy li ñuy wax léegi ci mbirum joxe ñam bi wax na ko wax na ne kul man waafaaka li ti daay fas bopp alayhi mataralataay in kunta zaaxina wala tax takri maalin ila xadali xaw fi darari li annahu subhanahu wa taala huwa allazi ataaka zaakal fa ay su maak sarta fii talafa li wàcc yi entaaka jàll xalafa suñ borom moo dig ñiy jël seen alal di ko dundale ne moo yor wut kuutaay la loo ca joxe nu mën di toll séntul ne suñ borom dana la ci del dana la ci indiwaatal lu ëpp loolee bu ci buñ ci xaaratoon loolu lépp yi te sëriñ bi wax ko ñun li ci sëriñ bi wax danañu doy sëkk kon nag noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla egg lañu ci ak jàmm te buñ ci eggee li ci sëriñ bëgg yàlla nañ ci am ndam ëpp loolee te muy sababu dolliku réew mi waaye dolliku muri yeeg ñëpp rek wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu auzu billahi min seytaan rajim bismillahi ñu ngi leen baax te di bu baax nag ci jataay bi mboolem suñu kilifa ñu ko bokkal yépp waaye ñuy tàmbale suñu nuyu akub siyaar nag sëñ Modou Fall mu sëñ Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi nekkal maam Serigne Fall day ñaan suñ borom yàlla na ko fi gën a yàggal te wéral ko te lim naa lépp ngir bëgg koo liggéeyal maam Serigne Fall yàlla na ko def ni mu ko soobee te ñaan ko ak moom moom mi fiy Serigne Fall nag ñu ngi tàbbi ci mbégteem ci ñaan suñ Touba Cheikh Amadou Mountakha Mbacké sunu borom yàggal ko te wéral ko ba lim naa lépp ngir liggéeyal ko suñ Touba mu def ko ni mu ko soobee tànd ko ak murid yëpp di siyaare bu baax bokki taal bi ñu bokkal jataay bi yëpp di techno bi yëpp nag joxal sëñ dam mii nga xam ne itam moor kàddu sëriñ bi te dégg ni mu ko waxee léegi waaye di ñëw ci kàddu sëñ maam Cheikh Fall mii moom Cheikh Sëriñ moom maam Serigne mi nga xam ne itam moo jëriñ ni daayira bi ñu xidmatu maam Serigne Fall te lëkkale ko te yàlla yëpp ci réew mi ci bitim réew sëñ bi nag dikk ci kàddoom jëmee ko ci ñu war a taxawee tur yàlla wi ginnaaw bi nga xamee ne sëñ Tuubaa Séex Muntaxa Mbakke joxe na ndigal maam Serigne Fall seen di Fall ba ndigal li tàbbee ci moom rek lañ xam ne bëggu sëñ bi daat nay am waaye ñun ñu ko sagalee nag ñu war koo def ñoo ñooñu lañ jëmale woto bi ci ñoom mooy bokk tudd ko yàlla yi nga xam ne ñoo taxawee barab ba sëñ bi deen soññ rek ak di woote ci buntu këri maam Serigne Fall yépp ndax ndigal li soo xasee jaar ci kilifa yoon wi yépp ci ñun muy sëñ bi Fall mu sëñ Modou Mbenda day mel ni njawtu maam Sëriñ Fall gépp ñoom ñëpp a ci biir ak seexi kër Cheikh Fall yëpp liggéey bi mel ni nag jaaroon fi ñu taxewoo kon ñu mel nii ci ndigalu sëriñ bi mboolem ñañ ci woon waxal ñu wax ca ak ñoom lay sababu tey jii nag jataay bi mel ni la xewute ak booba mooy gàttaayu jot ndigal gi ndax démb la ko sëriñ bi jot mu mel ni kon te altine la war doon liggéey bi diggante bi daati daati jóg jëm ci rek moo la ci xaj moo tax barab yu bari tàbbeegunu ca waaye ku déglu wooto bi nga xam ne ka joxe woon ndigal moo joxaat ndigal kam ko daa jox rek ñi ko war a taxawee itam ñoo koy taxawee la sunu ndam nag sëñ ko am waaye nag jëmi bu def ko nag ca loolu lañu bëgg waxtaan ak ñoom looloo mooy la ca soppi ko ci fañ ko daan defee mooy bii weesu ñëpp xam nañ ne ña ngi ko jagleeloon ca daarul mi nam la ko sëñ bi santaane woon ci biir kër sëñ Bassirou gi yii nag nekk ci penkub jumaa ji wax ne foofu la bëgg ñu ko defe turu yàlla wi fa sëñ bi bëgg itam démb sëñ si Mbacke mu sëñ ak sëñ Youssou Diop jëru ispitar xeya ànd ak ñun ba yóbbu ñu fa wan ko nu wax ne fi nga xamante ne mooy barab bi ñu julee xiit ci penku bi jàpp jëm ci buntu barab yi jàpp foofu itam jëm ci kër sëñ Baara Mbàkkeem sañ Tuubaa gi wër ko jaar buntu njenne diggante boobu lan wax ne foofu lañ soxla sikar si mu mel ni nag bu ñu ko ba gis ko itam xam ne fii li ko sëñ bi bëggee fi lañ ko fa seen defee ñu koy def loo fu mu ko waxoon ne foofu lañ ko defee ndax ku na bàyyi faale sikar rek kenn ku ne mën laa bàyyi fa ko fa na mën nga mën nga faa sikaree waaye moom mi ko def lu nag def na fii la ko soxla kon day mel ne lay ndam la mooy fexe bi fi ko sëñ bi bëggee ñu defee ko fi ñun ñëpp te tënku ci nim ni ko def loo mu mel ni foofa nag barab bi nga xam ne mooy barab bu jullaay xeet gi gis nañ ne foofu leen bëgg itam kuréel si kër bi na fa waaye nag kuréel bi nga xam ne mooy jàpp ci ñoom mu mel nañ ko defee nga xam ne benn géew lay doon war a yor nag lu mel ni tontu li muy awo bi ñoom foofu la ñu dalee nag ba nu mbooloo mi gën a yokk yokk ñu dem ba mën a wër kër sëñ baara gi nag doon benn genn buum bokk di daje foofu nag fi la sëñ bigtee karam di wax ne mi nga xamal mbokki taalibe yépp ak ñi nga xam ne ñoo ko séq ñëpp muy bunt këri maam Serigne fal yépp ku ci nekk sikarkat ba nga xam ne moo fa dëkk su dégle woote bi nañ ko defoon ca bee weesu rek na xam ne noonu lañ ko defee na daate mën a jokk sëriñ bi ku ci nekk soo ñëwee dañ la wax fa ngay nekk ak na nga fa mën a nekkee ñi nga xam ne ñoo yor bopp sécurité itam fan wax ne fa leen war a yem nefat di ko dundal ñu bokk xam ne bu ñëwee dañ leen ko won waaye lépp du génn foofu ma wax fa lañ ko fa si defee sëñ bi nag bëggoon mboolem ñu nga xam ne ay tuddkati yàlla lan te di ko yëkkati ca kaw ñu di ko dégg ndax xam nañ na ba tàyyi ni tur yi moom mën ko yëkkati ci kaw am koo yalu te loo ci am am na ko ci bu yàgg ba tëdd yow mi yàlla jagleel na nga di ko yëkkati yow moom nag soo ñëwee yow lañ ciy waxal fi nga ko war defee ñu indaale yii mooy xam ne ki nu woo moon war a woo waruñoo liggéeyloo lim nuy liggéeyloo tam alalama mu def ko suñ jëm kon indi gi mën naa yomb ci ñun waaye indi nu itam mën naa yomb ci ñun mooy suñu dikkee nañ ko def ci baatum ndigal bi baatum ndigal bi mooy fexe ba déglu li sëñ bi ak ñam fa teg nga jëfe loolu yi te xam ne ci la sa ndimbal ne ci la njaañ li nekk ñi tudd yàlla ñëpp nag sëñ bàyyul kenn mboolem ku ko man te di ko def bokk nga ci biir woote bi suñ dikkee nag ñoom dal gu toll ni nan noo xamee woon ak nañ ko defee woon ba sëñ bi taxaw ci ñëpp di ko dégg mu ne la ma ci bëggoon am naa loolu rek la yàlla nañ ci dajeeg nag tawféexam te amee ko noonu nii su ko defee bu nu dikkee nag ñu tënku ca loolu yi te xam ne liggéey bi moom dañ cee sagal rek waaye sëñ bi moom ba mu ko soxlaa rek la ko sama borom def loolu lañ gëm ci moom te loolu la jàpp njawtoog maam serafal gii ñu nga xam ne nag ñooy suñu kilifa ne suñu kanam tan bokkook ñoom ñu bàyyi xel ci seenu melo te fexe fexe leen ci roy ca loola mooy ñoom foo leen mën a fekk bu na xasee gis sëriñ bi noppi na doon lenn lenn lu faxee doon murid yoo xam ne duñ yëngal dara loolu di ko déglu ak di ko xool nun tim nan roy loolu rek moo tax ñu am ndimbal sëñ baa ngi woo nag mboolem tudd ko yàlla foo mu nekk waaye ñu daal ab yar ki teggin ak taw féex ju toll ni mën a taataan taraxa suñu ndab ba li sëñ bi yéene ci suñu xol yi ñu mën koo am ndax sëñ Muntaxa lii kat ban ko defee tur yàlla itam sëñ Cheikh Latif la mu ko waxee démb ko dégg na ko li mu wax ne moom lay sàkku ba mu ko sàkku tur yàlla da ko da ko caa amoon loolu nag mu da ko sàkkuwaat ñun di ko def loo Cheikh Rafal sant nañu ñu di ko def sëñ baa ngi woo ñëpp di gërëm ñëpp nag ku dégg woote bi itam loo ciy leerlu nga mën a woote nanga defoon ku ne fa nga jaaroon xam nga ko nga jaarat fa ñu leeral la ko foo war a nekk ñu ñu wax la ko nga nekk fa foofa itam sëñ bi woote itam wax na itam mi ngi woo mboolem ñi nga xam ne ñoo ngang tur yàlla wi ñu xam ne itam li ko fii ñu wax ak yéen ba bis ba fas na yéen di fa ak dafa nas dafa nocci ba fexe sëñ sëñ bëgg rek mu am su ne am naa ko rek ñun jeexal nañ ci kuy ñëw timit na nga xam ne ci nawet nekk te lu nu sëñ bi digal faaw ñu def ko kon ko ñu na nga waaj ma xam ne bu doon taw ci suñ kaw itam feek ndox maa nga wàcc dañuy jàpp ne ndox mi daa sikkar si rek waaye yàqulum dara kon kuy ñu na nga waajale waaju toll noonu ba nga xam ne duñ génn wuti bëri bëri li sëñ bëgg ñu def ko nañ fexe koo def rek te kenn bañ a bi di wuti dara waxtu wuñ ko yëkkatee itam fin na baax na rek foofu la ñuy taxaw waaye na ñëpp jàpp ne daal nam deme woon rek noonu lay demee yandee tawféexam ak ngërëmam sëñ defal na itam lim ci bëgg ci ñun yàlla na ko am liñ bëgg ci moom yàlla nañu ko am barke man sa ba mu diina jërë ngeen jëfati jërëjëf kon ñoo dégg kàddu yu tedd yooyu nga xam ne jëwriñ yi yëkkati nañu ko fi ci turu am di Fall moom Serigne Modou mbenn mi nga xam ne tey mooy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall moo woo Baye Fall yëpp ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mahamadou Muntaxa digle na ko muy zikrullah tudd baatu yàlla suñu boroom ñu di ko defee fi nga xam ne moo dale ci jullikaay it bi jëmb ci penku bi di fàttali ne bis bi altine lay doon ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nga xamante ni mooy weer yi ñu ne dëppook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2022 di ñaan suñu borom ci barkeb Seexul mu yegg ci ñun ñëpp defe ko ni ko sëriñ bi digle mboolem li nga xamante ni mi ngi ñu ko ci fàggul suñu borom defal ñu ko ci ci barkeb sëriñ Tuubaa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 illallah bur yàlla la ilaha illallah muhammadu rasulullah addi maam cheikh